acuudu billahi min alcheytaani fi kulli mawdihin wa fi lartaani bismi lilahi wa huwa arrahmaanu wa huwa arrahimu qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadin wal aali wa sahbihi dawina walil waali laqil lisaani waxlulan minhu luqad wajcalhu daakiran wa shaakiran abad wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida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 dundal weeru koor nag bu ñu ko waxee mooy dundal waxtu wi ci biir weer wi ci farlu ci luy maye tiyaabo te wattandiku luy waral bàkkaar wala luy waral àq juy dox sa digg sa moroomum jaam weeru koor nag bariwut ndax ñenn ñi dana weeru daa yàgg déedéet bariwut de ndax alquran sax ay ayyaama maadudaat rek la ko tuddee ndax fi mu ne buñ doon woor fan weeri fan nga xam ne mooy li ci gën a bari ñi ngi am ci ay heure sept cent vingt heures maanaam juróom-ñaar téeméeri waxtu ak ñaar fukk bu fekkee nag ñaar fukk fan ak juróom-ñeent la ñuy woor ñi ngi am ci ay heure six cent quatre-vingt-seize heures maanaam juróom-benn téeméeri waxtu ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn loolu nag bariwut boo ci génnee nag sa yëngatu àdduna yi nga xam ne ni moom yooyu c'est obligatoire mooy la vie quotidienne nga xam ne mënta ñàkk heure yi ngay nelaw heure yi ngay sangu heure yi ngay lekk heure yi ngay dem ca liggéeyukaay ba heure ya nga fay def heure yi ngay def booy ñibbisi waxtu yi ngay waxtaan ak nit ñi léeg nga tàyyal ci ba doo man dara wala nga feebar ci ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yittey àdduna boo ko doon lim du jeex ndax bu ñu demee ci nax ju Sëriñ Tuubaa daf ñuy jàngal ne yittey àdduna de na ngeen xam ne du jeex mukk ak ko mën di doon boo fi jógee faaw nga bàyyi fii ay naal yu a gut ak mébétu yoo amut moo tax mu ne fa inna umuma dunya la tanqatiu abadan gannaaw noonu la demee nag kon bu mu dox sa digganteeg sa yittey àllaaxira ja nga xam ne nii amut fu muy yem te fi ne yittey àdduna boo ci bëree woon ak jenn yitte lu mu rëy rëy ba daan ko itam fu ne nga dugg fa ba jàggi ko ba teg ko ci suufit nee na yeneen yitte dañuy taxawaat yii sa kanam yii sa gannaaw yii sa ndeyjoor yii sa càmmoñ daal lay dëkk te faw nga bëreek ñoom lu ci bari sax yitte ji nga jàggi ba ruur ko ba daan ko ci suuf day jóg faxasu daal ne la may ma revanche moo tax mu ne fa ma qada ahadun minha lubaanatahu walantaha arabun illa ila arab kon nag rikwaay yitte yooyu bu ndox dox sunu digganteeg promotion bu mag bi nga xam ne nit loo def mu rëy lool buñ ko yàq te Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu dafa waxoon ne àdduna day lu gàtt la waaye li muy gàtt gàtt eh, nit a ko gën a gàtt ndax loo gudd gudd fan fi nga ko fekk te fi nga koy baax mu ne nit moomu li muy gàtt gàtt Eh, ak mënam a ko gën a gàtt ndax ku judd ko ne danga fi nekk lu yàgg doogu man te boo fi nekkee tuuti dootoo man ci biir man googu nag nee na day jaxasoog yi tey àdduna ma malim ak yeneen ak yeneen nee na loolu nag kon mooy fi yàlla wala def fi ab safaan xaju fi kon nag rikk mbokk yi nañ nañ nañ yeewu te arab yi dañuy wax ne waxtu jaasi la ngànnaay la maanaam jaasi la boo ci daggut moom mu dagg la waaw kon nag nan mm, wàttandiku yitte àdduna yi nga xam ne ni xamuñu fu mu ñu jëmee koor gi dañoo fekk ak moom te danoon lu baax ak moom kon nag nañ teral koor gi gànnale ko berndeel ko ci ak njub ak lu baax ak sàkku mm, aw yiw ak tuyaaba yàlla nañ ci sunu borom jàppale te nangul nu ko